rawatina fi mu ne réewum Sénégal day yedd fi xew tribune yéen a kaay na ma dalee ko ca Obama vox populi naan kon ba ci sëriñ Muntaxa mu mbaax mi yéen a kaay yi naan man fi mu ne wax ak président Macky Sall moo daal di xew ci réew mi tribune ne ko kaay moom Obama kay nee na président Macky Sall ñetteel bi mandat tegal ci suuf te den caayamul sax am na mission boo xam ne kenn yëgul ab ñëwam de waaye ñi ngi def xeex bu metti ngir président Macky Sall mii du sampaat ndëndëm ndax nag administration bu Joe Biden bi ci boppam la ñetteelu mandat président Macky Sall mën a jural réewum Sénégal Sénégal mooy seen njàqare américain yi jaaxle nañ ci Sall ngaari lam tooroog ñetteel bi mandaam bi waaye tam Washington am na njàqare ci politique bi ni mu yëngalee gësam Sénégal ba kenn ñemeetul lekk kenn ñemeetul naan vox populi naan maan moo taxit Serigne Mountakha mu baax mi daal wax naag Sall ngaari lam tooro yónnee ko ay ndaw naan ko gis nga président Macky Sall fa Serigne Touba jaaroon noonam ya tubaab ya doo jaar te mu day moom sang bi daal dinay régler lépp bal tàkkul sagar xeeñul tribune naan kon Obama it ma ngay yedd Sall ngaari lii ko di jee naan kon moo ne day a xalaat président Macky Sall waa sàmm suñum réew coalition Pape Modou Fall ba ma ngay yokk ñu daal di taxawal nag feem di mouvement fësal émergence sabab gi nag du lenn lu dul Sall ngaari lam tooro amaat beneen juróomi at ci réew mi ci noonee dañ cay jaare wane liggéeyu président Macky Sall fa mu jagat-jagatee jële Sénégal ak fa mu ko jëmalee tey ci wàlluk émergence tribune yéene kaay ne ma ne la tubaab yaa ngay yedd Sall américain yaa ngay yedd Sall vox populi naan man Serigne Mountakha ma ngay waar président Macky Sall tribune yéene kaay naan man Khalifa Babacar Sall naan kon parrainage bi na deñ kon coow la coow la mooy sàll daal na dakk yéen kaayib dee média bi naan man F24 daal nee ñu fi mu tool nii Sénégal yëngu-yëngu gi ne tekk defuk dal daal moo ko mën a saafara rax ci doole di naqar lu faatu bakkan yeeg coono yi nga xam ni fan yi sénégalais yaa ngi koy dund le quotidien le quotidien naan man coowal suite ba tili bëgg nga xam fu mu toll ma xamal la ne Ousmane Sonko ngay doxantu kuur yi daal dinañ koy dakkal te sigi coor ak Sédhiou F24 di sàkku Antoine Félix Diome ak Ismaïla Madior Fall tekki seen ndombal tànk le témoin yéen kaay naan kon balaa ngay sori njàng ñu ngi ko xët-xët woo xam ni maar day taali ci loo xam ne daanaka politique dong moom ba ba na ñoo a na nga la ñuy politiquer l'école bi di xamal parents d'élèves yi ni ki noonu nguuru Sénégal ñu jël seen responsabilité ci li nga xam ne mi ngi xew ci l'école yi l'évidence yéene kaay naan man may mun a si soxo xuma ak sawru seen ma jiite woon sayem si day yëkkati nañ seen kàddu ne xale yi nga xam ne dañ leen def ay arme di leen xeexee moo war a dakk ci réew mi ca jullulu ab jàngalekat jiite na assemblée générale élève nan leen génn leen ngeen grève yi bu xale yi génnee dem bokki ci manifestation politique waxtu wa nga xam ne ndongo yi toog jàng lañ leen santoon ndongo yooyu bu ñu génnee génne yeneenu élève mbir mu jur jaxasoo goo xam ne lu ne mën naa xew ci yooyu la xale mouvement national des enseignants républicains naan na nguur gi jëli responsabilité am waaye tam waajuru ndongo yi jël seen responsabilité réew mi manti dégg talaata ji moom Ousmane Sonko fas na yéen a bu Ndakaaru waaye laataa muy dem Ousmane Sonko nee na yi la bëgg am liberté totale jaar fa nga xam ni moom la bëgg jaar sànneeku waaye tam procès boo xam ne day jaar yoon ay magistrat yoo xam ne kenn amu càk parparloo Walf Quotidien ne ma xanaa xamu leen ni keroog doon bëggoon jàpp Ousmane Sonko ñàppet andi Dakaaru waaye dafa am ñoo xam ne sàll ñooñu la déglu ba loolu antuwul L'Enquête Quotidien naan maan waxtu woowu Ousmane ba Bassirou Bey naan kon mën na caa nekk de waaye nag na jural ko jaxannama l'observateur naan man en tout communication bu Ousmane Sonko dafa bëgg wane ni kenn mëna lu ko dara lu ko neex def waaye nag mën naa tax ba ñenn ñi dëddu ko wan ko gannaaw turbine naan man loo ci manti déggi dossier Ousmane Sonko aji saar li daal mi ngi mel ni goom loo xam ne mi ngi ni càppe ci jumbaxu nguur gi faj-faj day nekk goomu brobaale neexut a dindi de te naan man Pape Amadou Keita xale bi am fukkeet ak ñaar faatu kër Mbay Fall certificat bu genre de mort bi daal dinay weddi ministre l'intérieur boobu jàpp gaa ngi mel ne tulleeg maale libération nee ma ña xam ne ñoo taaloon te cocktail molotov bus Dakar dem dikk ya ca Kër Massar kenn ci ñoom ñu ne moo jiite mbir ba bésub ngénteem lañ ko fekk këram jagat-jagatee ba ko doon intervenir waale nañ la waxtu woow l'exclusive yéene kaay naan man parti socialiste day xëccoo am na fa diggante Serigne Mbaye Thiam ak Aminata Mbengue Ndiaye keroog ba ñu sànnee cocktail molotov fi kër Serigne Mbaye Thiam Aminata ngi Ndiaye daf koo tere dugg ca siège du parti bi dàq collectifu ndaw yi nga xam ne ñoo fa teewoon te bëggoon jàppale si Serigne Mbaye Thiam fi mu ne nag nga ca biir parti socialiste ma ne turbine yéen a kaay ak naan man États-Unis ngay jéebaane Sall ngir candidature am bi jëm suuf waxtu woowu Khalifa Babacar Sall naan kon parrainage bi na dakk ci réew mi turbine naan man ñeneen a ngay jéem a yëkkati Sall plateforme xippil xool di gën di yokku lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci organisation fekki ko ci Sénégal yëpp ñu fas yéene wër jéebaane waaye tam wane ay réalisation président Macky Sall ka jiite plateforme ba Doro Gueye ñu daal di koy sargal ne ko yaay meilleure plateforme bu communication bu action turbine a kaay naan ba tey terewul àdduna wërngal këpp ñetteel bi man mandat moom doo ko fi defee le point yéen kaay naan man boobu 2024 gaa yaa ngi koy waaj moo di Samba Wañ ak mouvement yeli taara day ña nga ca ginnaaw Farba Ngom ngir investir président Macky Sall 2024 le point naan man ba tey ci semaine bu numérique bu Sénégal gii ministre Moussa Bokar Thiam connecté na président Macky Sall ak ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi le soleil yéen a kaay naan kon moom président Macky Sall day ma nga woon ca Ndiassane waa Ndiassane naan kon doxalal tali yaa ko defar Sall ndox mi yaa ko fi andi courant bi yaa ko taal projet centre de santé yaa ko fi ñu taxawal keroog ba mu demee di jébbal njaalam xalif général Cheikh Bekaay El Bekaay Kunta te la ko waa Njaasaan naan koon président président yaa mën libération yéeni kaay naan koon bu mu neex ban fàtte wax président Macky Sall ne ko am nag centre de santé boo xam ni ñàkkub courant ak groupe électrogène boo xam ne day dox normalement tax nab xale bu jigéen bu am fukkeet ak ñett daal di faatu ca centre de sante Vélingara xale bi maam jaara juuf la tuddoon fukkeet ak ñett la amoon doonoon élève soxla bu muy nokkee la fekk baax